ne nekk fukki weer yi di ñëw may wax nag Macky Sall pour mu dégg ko bu baax ndax man du ma wax ak ministre ab suq la rek bu ñu yónni du ma wax ak préfet dañ koo def loo rek mu def du ma wax ak ñii nga xam ne ndeysaan ñoo ci gën a sonn alkaat yi ndax li ma gis tey ci gendarme fii ci Joal te li ci ëpp jóge Ndakaaru bi ñuy dugg mbuur li ma gis tey ci gémi ñu rangale seeni camion te li ci ëpp jóge ndakaaru ñu leen di sonnal di leen fananloo ci mbedd mi waaye baax na ci tournée ndax gëm naa ni nag maa ngi doog a am kaaraange ndax lii ma gis nii président la république sax duñ ko jalonel noonu buy génn waaye may wax ki leen yebal ñoom ñëpp muy Macky Sall ma fàttali ko ni bi ñu dooree jàkkaarloo moom ak man ba tey xam na ni su amee ku ragal moroom moom moom ragal moom Macky Sall xam na ni lu toll nit tarfata ay ci ragal lu jëm ci moom man awma ko bu doon dese na sago ak xel dina xool neneen lu muy doxale moom moo yor nguur yor l'armée yor police yor gendarmerie yor justice te su tëddee ku ko yeewoon trois heures du matin la ko Ousmane Sonko mu yuux àll yépp waaye waaye awma lu toll ni tarfata ayn ci ragal ko malgré li mu yor yëpp ma koy gaaral nag di ko garantir ni ko bu soobee yàlla nemmeeku tuur bii ñu door niñ ko commencé lañ koy wéyalee ñu mu gën a calmer bu ñu xëyee ëllëg dañuy continuer dem fi ñu war a dem muy Malicounda muy beneen dëkk muy beneen dëkk dinañu continuer suñu nemmeeku tour ndax ñun kenn mënuñoo intimider bu dee nag nii lañ ko bëgg doxalee la ñu andi ci armée gendarmerie boobu andi ko ci police andi ko ci renseignement généraux loolu lépp nañu topp fu ñu dem rek waaye du tee nii ma ko commencé bu soobee kii bind dinañ ko yeggalee noonu may wax ak nag patriote yépp na seen xel dal na seen xel dal nañu continuer la ñuy liggéey ñoom nañu jël seen responsabilité ci provocation yi ñuy def te àdduna yëpp gis ko lu ci am rek ñëpp dinañ ko gis may dellu nag di waxtaan ak sénégalais yëpp kilifa yi citoyen ordinaire ak ku munti doon tooñ baa ngi bëgg a ëpp de te ñëpp a koy gis ci la ñuy xëy ci la ñuy gont moom Macky Sall am na sañ-sañ saa yu ko neexee mu taal otoom dem fu ko neex ci réew mi dajale nit ñi jox leen xaalis pour ñu yooxu turam waaye ñun amuñu sañ-sañ génn ci réew mi dem dajeeg Sénégalais yi soxlu ñu leen jox xaalis te ñu dem par yàllaa ko defee noonu Sénégalais yëpp génn ñu saafoonteeg ñoom wax ak ñoom loolu du am de dinañu continuer suñu tournée. incha allah nii ñu ko doxalee moom gendarmerie ki ko jiite fii nee na man amuma droit am convoi waaw kan moo mën a gis Ousmane Sonko fii mu toll ci réew mi ne mu ngi génn moom dong di dawal oto walla moom ak chauffeur dama ngay dem tournée dëkk bi bis bu ne convoi am fi moo xam sëy bu ñuy takk moo xam ñuy dem sport moo xam leneen ak leneen moom moom bis bu ne mu def convoi waxuma convoi politique nag waxuma convoi boo xam ne état wee ko tax a jóg waaye convoi politique bis bu ne mu def ko ay ñoñam bis bu ne ñu def convoi dinañ def convoi ma ànd ak ñi ma war a ànd ak yépp ñu def suñuy oto sama sécurité mat sëkk sama communication nekk ci ñu dem nemmeeku ñi ñu war a nemmeeku lii nag dañu bëggoon waxtaan tuuti ak Sénégalais yi te gën a dalal xelu ñi nga xam ne am nañu jeexi jaaxa àdduna dafa am fu muy tollu ku nangu nooteel ak jaay doole luñ la tegat yi dagan na dañoo nekk ci réew bu tudd Sénégal am ay charte moom mii di wax tey diggante 2009 ak 2011 dafa wër Sénégal yépp président Ablaye Wade mosu koo tere ne ko doo dem doo dugg dëkk sàngam te mosul dem moom dong da doon ànd ak ay ñoñam ñu dem kon suñu nangoo tey mu imposer ñu lii bu yóbboo ñu arrêté li ñuy liggéey li yëngu nag li ko yëngale ko ëpp doole mooy tiitaange bi nekk ci ñoom jamono jii élection yi ñu génn ñëpp gis nañu réewu taax yépp walla dëkku taax yépp dañ koo ñàkk boo gisee bi ma ñëwee Mbour dama ne man Mbour commune taxumaa jóg waaye dëkk dëkkaan yi ci biir ñoo ma tax a jóg ndax Mbour commune ñoo ko gañe ci élection bi passé donte ñoom ñoo gañe département yi fu ñu gañe département rek ñun ñoo gañe commune bi moo tax man dëkk dëkkaan yooyu moom ma intéressé te kenn mënu maa tere dem ci dëkk dëkkaan yooyu kon mbokki Sénégal dañoo bëgg ku am kàddu war a mën a wax ak Macky Sall ne ko lu mu nekkee du dëgg na waxtaan ak moom ndax moom mooy taal fitna ci réew mi bi mu fi nekkee ba léegi fitna ci fitna la tegu ku am kàddu mën ko koo wax na téye loxoom ndax xale yi ma gis nii ragaluñu ko de su génne woon euh, un million de de alkaati fii xale yi ragaluñu leen sànni nañ tey seen lacrymogène benn xale bougéwul fu mu taxaw loolu nag bu yàggee ci fitna lay jur fitna lay jur ci dëkk bi kenn mënuma imposer ma dem toog ndakaaru naan maa ngi xaar 2024 damay def samay tournée citoyen la am naa droit circuler fépp ci senegal kon nañu waxante dëgg su coow amee de nañu seet kan moo tooñ ñu jàpp ci loxoom ne ko tegal ci suuf ndax lii ngay def baaxul ci réew mi bu ko mënul nag ñun ñépp nag du question par parloo de ñun ñépp ñoo war a ànd mànkoo jàkkaarloog moom ndax lii su yee nag lañu amoon ci démocratie Sénégal te li muy wund mooy liberté bi sénégalais bu nekk am dem ak dikk dem nemmeeku ku la neex loolu la Macky Sall bëgg dakkal ci réew mi ndax dinañ ko nangu ndax di ngeen ko nangu loolu mooy la seule question man nag en ce qui xalaatuma ko nangu moo tax ma ne leen bu soobee yàlla ëllëg dinañ wéyal nemmeeku tuur bi te bu dee Macky Sall mën na dëgg dëgg dëgg dëgg 46 départements yi 553 communes yi na waajal ay camion mag ay dragon mag ay pick-up fu ma dem nañ ci topp rek ba ñu xam fu muy mujje ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamualeykum chers compatriotes euh, je reviens à vous à peine 24 heures après ma dernière sortie pour apporter quelque éclairages sur les événements d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé est indigne d'une démocratie comme le Sénégal. Ce qui s'est passé